ay acte ay teg ay jéego yuy wane ni véritablement ñoom bëgg nañu leeral askan wi lan moo nekk dëggantaan ci pétrole bi ak gaz gi ak yeneen xeetu meññee fi nekk ci biir suuf. une concertation Léo du ko yàq ci <laughs> ressources naturelles yu ci mel ni pétrole bu ñu war a exploiter d'ailleurs surtout ko laata mbir yi di tàmbali coow di jib day gën. waaw parce que dama jaaxle bu ñu nee amul concertation. parce que ah. xam nañu pétrole li mu jur ci àddina si gis nga fu nekk ay foyer de tension la fu pétrole am am na fa ay foyer de tension donc dama jàpp ne Sénégal dafa war a mun a jël exemple ci yeneen réew yi nekk fii en Afrique Afrique am pétrole gis nañ seen pétrole ñu ko cax-caxee wala ñeneen ñi ñëw ñu jox ko ay puissance ñu exploité ko ba finalement bi euh, euh, askan bi ci waroon a jariñu finalement doo ci jariñu donc au Sénégal je crois savoir ni que il faut forcément ñu def ay concertation et que concertation yooyu ñu permettre à tout sénégal yi mu mun a accéder ci dossiers yi ñu xam ne ni que nii lañ ko doxalee ak nii lañ ko doxalee ku ci àndul nga ne nii la ñu defaat beneen concertation uh-huh. pas que ñi nga xam ne ni ñooy autorités yi mm-hmm. ñu tëju entre ñoom seen biir ñu signé ay euh, maanaam ay euh, accord puis rencontre yoo xam ne ni léeg-léeg li ci nekk du c'est pas au bénéfice du Sénégal mais tout au contraire c'est contre le Sénégal donc loolu moom il faut que ñu def loo xam ne ni nit ñëpp dinañ ci teg seen bët loo xam ne ni dina leer nañ c'est vrai du convention yëpp la ñuy génnee teg ko à la l'œil pour tout le monde mais la plupart du temps il faut que li nga xam ne mooy axe majeur yi nga xam ne moo tax ñuy exploiter pétrole bi ñu mun koo teg à la main des Sénégalais ñu mun a comprendre que voilà comment les choses en réalité également comme ni ñu ko waxee. Mhm. nos pêcheurs sont en train de payer un prix boo xam ne ne. Mhm. moo boo xam ne ne bu bu bu bu métti. en réalité mënatuñu dem géej ak yeneen yi. peut-être que tamit mun nañ leen déplacer. Mhm. tegal leen ay euh, endroit yoo xam ne ne mun nañ fa tabax ay euh, maanaam ay kër au bord du rivage. yoo xam ne ne ci ay géej yoo xam ne ne peut-être que y a pas de pétrole. ou ñu mun cee exploiter di ci dund. parce que ba léegi c'est très possible ñu continuer di dem géej di am jën di ñëw di très bien ñu wax ci langue politique bi nag Léopold Tamba ak violence yu ñu ci nemmeeku euh, fan yi ñu génn Géejawaay Thiès jàpp Kaolack Ndangaan ba ci sax ca Saint-Louis lu mu ci doon rek ñaari coalition li ñu gis ne saa su ne dañuy euh, euh, xeexu ci seen biir muy Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar waaye ca noonee plateforme de veille des femmes pour la paix la sécurité jëm ci wàllu élection yi nga xam ne élection yu apaisé lañ ci bëgg fii ci mu réew du Sénégal ñu gën ñu duppee seen bopp ci langue politique bi ba si ñun presse ci ñu xool ana yan yoon la ñu a a jaar ngir ñu mën a soppi comportement yi amal ak campagne wu am solo te am jàmm waaye tam élection yu dal présidente ba nag ba ñu jokk moom yooyu le kàddu la ñu baaxee Penda Seck Diouf lay wuyoo ñu teelu ko yi nga xam ne ñoo nekk en lice nii ci campagne bi ni leen ne ñu mooy lu nga xamante ni ay discours la lu nga xamante ni si ay violence la euh, ñu ngi koy wax aussi nag euh, presse bi ñu ngi def aussi appel ci presse bi nga xam ne ñu ngi rapporté campagne bi te di leen di euh, di ko suivre ak li ci nekk ñu moytu bu baax ay di retransmettre ay yu nga xamante ni si mën na jeexi jaaxa wala mu indi ay violence ci campagne bi ñu ngi koy lancé yi nag état bi indi ko moom fi mu nii on est en campagne campagne waaw mais nag état ci jëmmam moom mooy veiller à la protection et à la garantie de la sécurité des populations. daañu ñëw ci loolu commentaire ko waaye dañuy dem euh, seeti ji Alassane Balde euh, mi ngi ci euh, terrain bi ak caravane bu coalition gëm sa bopp wi def campagne ñoom itam campagne boo xam dañ ko tënk ci non au troisième mandat Alassane Balde su fekkee mi ngi may dégg ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed. ay ca Alassane lan la nu mën a jàpp tey ci seen campagne bi yéen. alors mun nañu wax ni nag euh, Mohamed euh, yegsi nañu fii nga xamante nag mooy quartier général bu grande coalition gëm sa bopp gannaaw bi nga xamee nag tey la daal di sóobu lu jëm nag ci campagne bi nga xamante ni moom la amal jamono ji ci réew mi ñeel li nga xamante ni mooy wàllu législative yi bugaan gii nag nekkoon tey ci mbeddu ndakaaru yi nag euh, daanaka bu ñu ko dooree fii nga xamante ni mooy ci cité góor gi dellusiwaat nañ fi gannaaw bi nga xam ne nag jaar nañu quartier yi fasantikoo te wuute ci fi nga xamante ni mooy ci ndakaaru jaar nañ Sicap Baobab jaar Grand Dakar jaar Bentali jaar Ñaar Tali jaar HLM dem euh, Colobane dem euh, Médina euh, na fi nga xamante mooy point ak ñoomin seen kon ñu jàpp ni nag caravane bi nag caravane bi def na diwaan yu bëri fii ci diwaanu Ndakaaru Bougane gee Dany nag nekkoon au contact des populations yi nga xamante ni ñoom la buggoon waxtaanal ci anam yi nga xamante ni moom la sooboo sóobee ci élection yi ngir wàllu boobu sax dañuy ànd ak nga xamante ni mooy Gueye l'original moom nag di responsable ci coalition Gëm sa bopp mu dellu soit wax ñu rek li nga xamante ni mooy programme bi nga xamante ni président Bougane Gueye teg na ko leen non au troisième mandat bi nga xamante ni moom moo ko tax a jóg looloo tax mu daal di soldalam dem nemme nemmeeku ci askan bi euh, Guèye l'original def nañu ensemble li nga xamante ni mooy le peu de Dakar. Euh, quelle appréciation d'abord par rapport justement à cette caravane. mais xol bu sedd tey je crois que ñëpp ñu def caravane bi seen xol sedd na population yi sedd na vraiment li ñu bëggoon wax ne tey dinañ gën a ci élection yi parce que comme dañoo seppi suñu liste tey Dakar waaye accueillir nañ ko et tey xol yëpp a sedd daal parce que vraiment ça a été extraordinaire et des convivial boo xam ne président Bougane ak ñi mu àndal waxtaan nañu askan bi saafoon tex ñoom. gis nañu programme sax mu ngi ko tënk yi nga xamante mooy seen seen ñàkk seen ñàkk bëgg li nga xamante mooy li ñu ci réew mi rawatina cherté bi yenn yi yi nga xamante ni jëm ñoomin seen ah, tey ah, nan ban bi nan nga ko jàngatee yow. mais ni ma ko jànga rek mooy la ñu wax population yi muy du point ñoom dañ ko adopté xam nga tey dund gi cher na ba nit ñi tey dañoo loof dañoo lompoñ ñëpp sëngéem pour nga lekk tey dafa metti pour nga faju dafa metti pour xale yi jàng dafa metti tey loolu tey population yi gis nañ ko tey bu ne aussi troisième mandat troisième candidature bi c' est anticonstitutionnel donc loolu population yi accueillir nañ ko point yi nga xam ne génn nañ ko noo à l'homosexualité loolu population yi accueillir nañ ko tey fukki poñ yi nga xam ne génn nañ ko dafa fekk ne dafa mel ni sax population yi ñoom loolu lañ doon xaar avant ñu leen koy wax dafa ni ñoom loolu lañ doon xaar ñu sant ci yàlla parce que tey ci seen doole tey suñu liste sànni ko fële wante teewul tey on est extrêmement présent pour ces élections et noonu lañ koy defee fii ci Dakar defe ko ci gox goxaat yi defe ko ci Sénégal yëpp pour ñu xam ne ne ñun même bu ñu nekkul assemblée tey dinañu déranger tey dinañu wan Sénégalais yi tey pour que opposition bi am majorité à l' une dernière question ñu bëri dañuy jàppoon ni peut être Bougane ci communication gannaaw bu mu waxee non à mm. en compte jàpp nañu kon ndax jàpp nga ni daal euh, xëy na nit ñi ñoo amoon incompréhension ci euh, li nga xamante mooy doxal. tey fukki poñ yi ñu joxe. dafa doon fukki poñ yoo xam ne tey député Sénégal yi nga xam ne war na leen a fal war nañ ko yóbbaale assemblée nationale fukki poñ yi du dara loo xam ne day wone ne sénégalais yi tey fu ñu toogee fu ñu taxawee ak ni ñu sonne fukki poñ yooyu képp kuy député tey di nga ko def lay taay yenuwaale ko yóbbu ko assemblée et c'est ça l'objectif l'objectif c'est de parler aux populations de les montrer que aujourd'hui nous ne serons pas à l'assemblée mais nous allons donn des voies et moyens et des orientations pour nos futurs députés pour ñu taxawaay bi non à des Sall mais on des députés de la République des députés des populations parce que ku wax dëgg xam ne nit ñi sonn nañ Sénégal. jërëjëf ma fàttali Mouhamed ci ponk fukki ponk yooyu nga xamante bëggoon cité na ko nag euh, ci li nga xam mooy ci euh, euh, programme bi mu di cautionner justement donc voter Benno Bokk Yaakaar c'est cautionner une législature avec de la corruption avec également beaucoup de passeport diplomatique yi nga xamante ne mooy suñu assemblée bi moom la a taxawal li nga xamante mooy programme bi kon ñu jàpp ni nag euh, Mouhamed daanaka euh, kii bi journée tey bi jeex na euh, ñu jàpp ni ñu ko démarré fii au niveau de Dakar du département de Dakar fii nga xamante ni mooy cité góor gi fi lañ ko démarré kon fi lañ koy jeexale Mouhamed ma delloo la antenne bi xam naa incha ci yeneen programme rek ñu dellu siwaat ci détal leen li nga xamante moo am ci caravane nga xamante président Bougane de la grande coalition Gëm sa bopp tàmbali na ko nii tey ñeel li nga xamante élection législative du juillet prochain. jërëjëf Alassane euh, Balde ñu di la gërëm bu baax a baax euh, xëy na euh, ëllëg daañu la toppaat yi itam ci yeneen gox ci boobu lekk caravane soxal campagne coalition gëm sa bopp ginnaaw ba ñu seppee listam ñu ne ñoom itam dañuy campagne ngir wax déet ci troisième mandat ñu woyal xibaar yi itam ci rubrique en route vers l'Assemblée nationale dinañ taxaw tey ci traduction simultanée des débats de l'Assemblée nationale mu doon nag projet bi nga xam ne day dugg ci douzième législature bi nga xam lu jëm ci barrière linguistique yi euh, projet la itam bu nga xam te ni euh, assemblée nationale moom ci boppam moom moo ko euh, financé ak union européenne boobu lekk lexique ak itam xew-xew wala historique boobu lekk mbir dañ ci ànd ak Ndeye Diagne système d' interprétation simultanée ñu dugal ko ci douzième législature bi def na ay jéego yu rëy ci assemblée nationale système boobu nag ñi ko financé di union européenne lu tolloo ko trois cent millions ci suñu xaalis dimbale na bu baax député yi ndax interprète yi ñu recruter doctorat la ñu am daal di maîtriser bu baax a baax langue yi ñu dugal ci assemblée.